ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا bismillahi irahmani irahim wasala allahu ala seyidna muhammadin waala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim mawlaaya salli wasallim daa'iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim fukkeelu bunt di continuation wu juróom-ñeenteelu bunt bi ndax daf ko def ci munaajaat muy dayaale ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam ak ardul xaajaat gaaral ay soxlaam sidna nabi sallallahu alayhi wa sallam xeet la ci tawassul mu ne yaa akrama alxalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli alxaadisi alamami wala yow yonentu yow mi nga xam ne yaa gën a tedd ci mbindeefu yàlla yi man de budul yow xaw ma fu ma jëm aw ma beneen wéeruwaay budul yow fii rawatina fa jëm mooy bu xew-xew bu matale bi agsi ñu ne mooy dee ñu ne mooy yowmal qiyaamati ndax xew-xew buñ koy yëgle rek dafa wut dee nag ñëpp koy def yowmal qiyaamati it kenn du ko wute wér na ci xadis ne bu kerogee doomu yi dañuy tiit mbindeef yi dañuy jaaxle yonentu buñ dem rek mu joxe ngànt ñu yegsee ci yonentu sallallahu alayhi wa nag mu ne ana laha keroog moom la ñëpp yaakaar mu ne ko man buur Siri de awma beneen weeruwaay bu dut yow yonentu sallallahu alayhi wa sallam walan yadiqa rasul allahi jaahuka bi ida alkarimu tajalla bismi muntaqimi yàlla mu tedd mu baax mi gis nga karim la wax keroog bu solee mbubum muntaqim turam woowu nga xam ne buy fayu mbub moomu lay sol mbubum muntaqim maanaam te jël li ci lintiqaam dafay feeñ-feeñ gu mët waaye mosuta bañ tudd muntaqim bu keroogee man de sa daraja xatut ci man waaw wala yadiqa rasulallahi jaawka bi xam naa ne lu taxawaay ba màgg-màgg xaj naa ci sa daraja kon nag ngàllabul ma xañ ak ramm nga ma xañ wàccuwaay bi nga am ci yàlla moom xool ma ci yow yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam basiri ku yàlla la karim muntaqim seetal loolu ndax ñi xam yàlla su tuddoon muntaqim rek te tuddul karim mën nañoo seey ndax ragal ku xam yàlla dafay jëfandikoo usloobu yàlla maa garraka bi rabbikal karim karamuhu ba mooyoo doomu aadama lu la war ci sa borom bu tedd bi nitu yàlla ko mu ne ko sa teraanga ji rek moo ñu jox moo ñu jox tontu mu ne fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu allawxi walqalam tabe mooy joxe goo xam ne du am app te ka koy joxe bëggut ca ku ko fay mu ne yow yonentu nag sa tabe gi àdduna ak àllaaxira lëf lu tuuti la ci xam-xam yi la yàlla jox xam-xamu àllawa xam-xamu xalima ga lu tuuti la ci ndax yàlla xamal na ko xam-xam way njëkk ak way mujj te allawxu wal yàlla daf leen binduloo ba yowmal qiyaamati te yonentu wax ne ne yàlla xamal na ma lu ne gannaaw yowmal qiyaamati ci lu ne la bokk naka noonu bu dut woon ak moom yàlla du amal kenn kon am ngi mooma moom la yàlla njëkk amal ko amati ci barkeem la la amal ba pare li yàllay joxe yépp ci moom la ko jaarale muy séddale kon àdduna ak àllaaxira lëf la rek ci tabim gi koo xam ne nag àdduna ak àllaaxira nim niñ rée lëf la ci sa tabe sa xam-xamu àllaw xam xalam bi lëf la ci xam nga ne ku tuuti ku mel ni man fooma ma dugal tawut la mu mel ni bakkanam daf koy wax ne ko ah, liñ def dafa rëy de est-ce que ñun mérité nañu ne ko yëfi du mérite tawfiq la bul naagu yaa nafsu laa taqnati min zallatin azumat inna alkabaira fi lgufraani kallamami yow sama bakkan bul naagu ci yërmande yàlla ngir rëyaayu tarxiis yi ñu tarxiis bakkaar yiñ bakkaar ndax sama borom buy jéggale ni bakkaar yi ndaw yi yombee ci moom mu jéggale leen noonu la bakkaar yu mag yi yombee ci moom ndax dara rëyul ci kanamam bakkaar du rëy ci kanam yërmande yàlla waaye du tuuti it ci kanam màndu yàlla laalla raxmata rabbi xiina yaqsimuha taati ala xasabil isyaani fil qasami xëy na yàlla buy séddalee yërmandeem yërmande ja ku nekk na say bàkkar toll la lay jox suñ bàkkaar yi nuñ bëree bu ñu yàlla joxe ci yërmande lu toll noonu kon de danañu peeg ak yërmande te yërmande sax bu na loolu wala bul naa ko xëy na lu tax accès guñ dañoo nekk ci liste bi rek dañoo gën a bëri le bàkkaar muy njëkkee ñële ñaar yëpp dana jamtalu waaye bu njëkk bi gën a rafet waaw yàlla dana jéggal jaam daal di ko soppil la mu defoon yépp ci yiw ci ci ci musiba muy yiw bu ko defee mu naan sama borom nangam defoon naa nangam defoon naa nangam pour bëgg yiw ya gën a bare ndeysaan yàlla bari yërmande mu ne yaa rabbi wajcal rajaa'i gayra muncakisin ladayka wajcal xisaabi gayra yàlla bum tas yow sama borom sama njort yàlla bum naax saay xisaab bi sama njort ma koy firi waaw yaakaar gu rëy gi ma am ci yow yàlla bum tas njort gi ma am ci yow yàlla bu ci dara wàññeeku ndax yàlla mu ne maa ngi ci sama njortu jaam wax nañ ne waaye danañ ko bëgg a yóbbu safara muy gertu rek taxaw leen malaaka yi taxaw sama borom ne ah dafa am lu baax loo def loo fekkul ci sa téere ne am lu bon loo deful luñ la booleel ci sa téere ne déedéet looy gestu ne ko du lii laa yaakaaroon ci yow loo yaakaaroon ci man sa yërmande yóbbu leen ko aljanna waltuf bi abdika fi daarayni inna lahu sabran mata tadcuhu l ahwaalu na nga ma ñeewante yàlla ci àdduna ak àllaaxira ndax sa jaam bi muñam gi su ko tartar yi dégg nga bëmëxee bu ko tartar yi attaqué rek muñ nga daanu muñ nga notu maanaam sama muñ dafa am limite yërëm ma وإذن للسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل sajimi wa idan nga digal li suxbi salaatin ay niiri julli min ko yu jógee ci yow daayimatin julli goo xam ne aji saxla niir yoo xam ne way saxlañ ci julli ala nabi ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mun hallin wa mun sajimi ci taw boo xam ne niir yoo xam ne dafay dafay sotti ndox ndox moo xam ne dafay sotteeku di dotteeku waaw yëpp nag nga wàññe wàccee leen ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maara naxat adabat ilbaani riixu saban wa atraba alciisa xaadi alciisi binnaxami feeg ngelawu sabaa mi ngi gësam mi ngi jaayiloo banxaasi garab cuuraay gu neex xet googu di baan tudde nañ ko sabaa ngir la muy upp jëm ca kaaba ga nga xam ne ngelaw lu rafet la lu neex la di upp garab googu di baan banqaas yi jaayu muy jolli fekk looloo ngi am yàlla na salaatu wasalaam nekk ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam al isa xaadil iisi wa atraba te sigérloo al isa gëlëm ya yooyu gaaw xaadil iisi aji màng gëlëm yi di leen woyal bi naxami woy yu neex yooyu le nga xam ne dafay tax gëlëm yi di gën a gaaw fekk loolee ngay am salaatu ak salaam yàlla na ak wàcc yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku julli ci yonantu nag danga cay boole saxaaba yi te ñi gën ci saxaaba yi ñooy ñeenti ñi bëgg a tudd thumma rida an abi bakrin wa an umarin wa an aliyin wa an uthmaana dil karami thumma rida topp ngërmande yàlla an abi bakrin yàlla na nekk ci seydina abu bakr zil karami kay borom ak ngëm yàlla gu mat sëkk wa an omar yàlla nekk ci omar zil karami kay borom ak njàmbaar gu mat sëkk wa an aliyin yàlla nekk ci ali zil karami kay borom ak xam-xam gu mat sëkk wa an uthman yàlla nekk ci uthman zil karami kay borom ak tabe ñoom ñëpp zil karami kay borom ak tedd nga wala ali wa sahbi al aal mooy képp koo xam ne bokk naak yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci banu hashim ba pare gëm ko xam ñu ca boole banul mutalib wa sahbi ak saxaabaa mi képp ku dajeek moom te gëm ko thumma taabiina topp ñi topp ci saxaaba yi fahum ñoom ahlu tuqaa ñooy ñooñ ragal yàlla wan naqaa ak set wal xilme ak lewet wal karame ak tedd nga mu ne yaa rabbi bilmustafa ballig maqasidana waxfir lana ma mada ya waasi alkarami yaa rabbi yow suñ borom yow sama borom bilmustafa ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ballig yàlla na nga jotal ñu maqasidana suñuy bëgg-bëgg waxfir lana yàlla nag ñu baal ma mada li weesu ci ay rëcc-rëcc li weesu ci bàkkaar moo xam yuñ tay la wala yuñ tay wut yaa waasi alkarami yow mi nga xam ne yaay aji yaatu ji mbaax waxfir ilahi li kullil muslimina yàlla sama borom yàlla nga baal jullit yépp bi maa yeetluuhu ci barkeeb alquran ji nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana ko jàng fil masjidil aqsa ci masjidil aqsa jëca dégg nga Palestine baytul maqdis wa fil xarami ak li ñuy jàng ci kaaba gi makkatul mukarama ci muy xaram bi wala xaramul madinatil munawara bijaahi man baytuhu fi taybatin xaramun wa ismuhu qasamun min acdami alqasami ci barkeeb ki nga xam ne néegam ci madinatul munawara xaram la turam ngëñ la te bokk na ci ngëñ yi gën a màgg mooy tur yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa haadihi burdatul muxtaari qad xutimat walhamdulillahi fi badin wa fi xatami lii de mooy burdaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mi matal nañ ko ñu ngi sant yàlla ci tàmbali gi di ko sant ci mattali gi abiyaatuha qad atat sittina maa miatin farrij biha kerbana ya waasi alkarami baytam yi juróom benn fukk lañ gannaaw téeméer yaa rabbi ci barke tagg yi ñu tagg yonantu sallallahu alayhi wa ci bayti yile yal na nga wuññi suñu njàqare yow nga xam ne yaay aji yaatu ji tedd nga yaay aji yaatu ji tab mawlaaya salli wa sallim alxalq ala xabibika xayri alxalqi kullihimi wa axiru daawana an alhamdulillahi ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا